la coalition Sàmm Sa Kàddu je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections PASTEF pour sa victoire cette élection a été une preuve éclatante de la maturité politique du peuple sénégalais qui a su faire entendre sa voix dans le respect des valeurs républicaines je remercie profondément toutes celles et ceux qui ont accordé leur confiance à notre coalition Votre soutien est une source d'inspiration et de motivation pour continuer à défendre les intérêts de notre pays et de notre jeunesse. Notre engagement pour un Sénégal juste, solidaire et tourné vers l'avenir reste intact. Ensemble, nous continuerons à travailler pour que la démocratie sénégalaise brille toujours plus fort. Merci au Sénégal. Merci à vous, Barthélémy Diaz, honorable député. Ina bo Cheikh Thioro Mbacké ne tooy na sa xol ndax wax ji mu wax Euh, te li muy wax xam nga Cheikh Thioro Mbacké du politique politicien li muy wax lu mu gëm la te ku ko gis ci assemblée nationale maa ngi jëm rappel bi nga xamante ni euh, euh, ñi ngi waajal ñi ngi waajal député yeeg yooyu muy ne yéen député waa benn bokk yaakaar bi mooy seen dernière. boolee ba ngeen ne bàyyi bàyyi di leen di leen tooñ ne te kii donc mu nekk euh, vraiment euh, ni ko xam ne jàmm rek la doon wax ci l'Assemblée nationale bu mi marathon budgétaire yeeg yeneen yëpp dafa cohérent ndaxte Sonko la mos a jàppale depuis nga ko waxee depuis 2017 ba léegi nga milité ci benn parti di ko jàppale lii tey yàlla moo ko fayee loolu muy tubaab yëpp na ko euh, kii na voilà wax na loolu ci meeting bi bi ne Ousmane Sonko àndaguma ànd moom Serigne Touba moo tax Touba moo tax. donc lu may bu ma fekkee leer na ma Ousmane Sonko bi ànd bi ma ko ànd ak moom euh, tubaa du ci gagné dara wala du du taxaw Serigne tubaa dama koy bàyyi ndax politique euh, dama koy dama def ngir Serigne Touba dama def politique ngir Touba donc di défendre l'intérêt de Touba mooy représentant du peuple di wax dëgg di jàppale nit ñi di am kii di ci boole nag diine ak di ci boole ak wax dëgg def dëgg vraiment kooku mooy l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké ci euh, moo dal di xamle ne tubaa gañe na Pastef gagné na tubaa ci bépp bureau de vote Euh, Ousseynou Ly ministre conseil porte-parole mu ngi confirmer sur sa page Facebook ne tous les quatre maanaam quatre-vingt-onze bureaux de vote yëpp euh, Pastef gagné na ko ci Médina donc Médina euh, Pastef nangu na ko ci loxol Bamba ak ñu mu ànd toon mm-hmm. waaw waaw ah, sant yàlla rek mm. bu baax a baax xam nga elmat dafa am loo xam ne politique moom dafa am loo xam ne moo fi doon xew. Hmm. nit ñu dañu dem ba seen yaakaar tas dëkk bi amatul constance amatu fi. nit wax léegi léegi léegi léegi dañ ci léegi léegi léegi xalaatul kàddoom yi génn ci gémmiñam hmm, hmm. xalaatul image xalaatul doomam xalaatul soxnaam waaye xalaatul tamit fi mu bokk fii koo fi gis mi ngi nekk ci benn lignée mm-hmm. mu ngi ci géño walla ci meen ay politique mm-hmm. rawatina ñi nga xam ne dañ leen dippee le système mm-hmm. suma assistance mooy woote de docteur Babacar Niang numéro euh, depuis soixante ba bisu jonn yàlla tey sénégale yi di dund loolu maa maa waxtaanee nañ ko fii Ousmane Sonko pour mu convaincre les sénégalais day yomb pour mu convaincre leen day yomb. day yomb de. ah oui oui lu tax. Mm, lu parce que dafa indi benn discours bu bees discours boo xam ni day dundal ab ruu. day dundal tamit euh, ab. Euh, mbóot mi yàlla def ci nit te kenn du ko gis da koy dundal day suuxat tamit ab mythe le mythe le mythe yàlla dafa ay mbóot yu ma jël def leen ci biir doomu aadama léeg-léeg nga dégg ñu naan le mythe s'effondre li leen nit di rusé ak di la ko ragale nga def lu ñàkk fayda affaire bi ne mbapp kenn dootu la wét loolu nekk ci suñ politiciens traditionnels loolu nekk ci parti traditionnel même jour vote ñuy def yu ñàkk fayda toog ci bureau de vote yi yor seen xaalis montrant aux Sénégalais que ay bëy ngeen ay xar ngeen vous êtes un bétail électoral maanaam sénégalais yi dañoo am ku ci nekk rek ak li ñu la war a jëndee. Mm-hmm. maanaam politiciens yi ñoo dem ba woon sénégalais ne leen yéen mën nañ leen a jënd am na ko waxoon fii géejawaay na yéen waa géejawaay ay bëy ngeen. <laughs> lu rëy na trop. bu ñu leen wisalee nii dugub rek yéen ñëpp ngeen daw ca moo tax yéen juróomi at yu ne ñu gàddu kenn mu jugee bitim réew ñëw nekk seen maire. mu soo leen am maire bu fi juddoo yaroo fi màggee fi jaar ci digg bi. élection yi ñëw mu doon maire terrible gars yi confirmeel ko loolu ay mag yu ñàkk fayda ne fi di politique war a bañ et dans la vie il faut savoir dire non Ousmane a dit non fa mu ko war a waxee ak ki mu ko war a wax man moo tax bi mu ñëwee essan nit ñi ñu ngi nekk feneen suma papa bi mu dégloo sama discours bi ne ma Chérif ma ne ko naa mu ne ma da ko wax fi nga ko war a waxee wax ko ki nga ko war a wax mm-hmm. une politique et sociale vécue par le ñu ko ko teg gars yi nekkoon fii ci biir nguur gi ba bàyyi ba premier ministre du Sénégal ñëw patron bu Pastef ñëw la tête de liste de la coalition Pastef ñëw toog ma wax ko li ñu fi dund ñun. ah fu ma koy waxee feneen. foofu moom moo ma jaaxal. mënoon naa ko wax si ngeen soxla. waxee ko géej dem naa añee këram jour bi ñuy dem Mbacke. Hmm. man ak moom ak Maymuna bu soog Décé ak Njaga Sekk ñoo ko taabul Fadilou Keita toog ne ak Jibi Gueye Ndiaye mais ñun ñoo nekk nii. bokk di xewlu. Ousmane Sonko ñëw indi discours bu bees imaginez yow juróom-ñaari weer demoo Ziguinchor fi ñu wax ne mooy sa base xam nga yow ragaloo de ñaata at ñu privé ko tukki. demoo ci diaspora tey la ko diaspora ba gën a bëgg. gisuñu ko gisuñ ko gisuñ ko. ah mais boo xottee seen xol yi tey Ousmane nga tey fekk xam lu ko waral la constance. constance baax na de. ak am solo la hmm. jàmbaarte la dignité parce que loolu yëpp gisatuñ ko ci suñu homme politique yi da ngay dajeeg ni sa mu ne la mais amen bul changé de. ça c'est une insulte man pour man nit ku ma ko wax rek mi ngi may saaga. xaw ah yi wallaahi. bul changé Ameth bul changé bu la dara jaral nga changé mais pourquoi changer lan moo xew ba nga war a changer. lan moo xew yow sa deret dafa changé. Hmm. dañoo judd judduwaat. déedéet ñi la juróon juratuñ la. mais pourquoi. pourquoi changement automatique. ndax ay privilèges may la oto wala yëkkati kër. Mhm. jox la jox la xaalis ne la yow diliyeel sa sang Ousmane bañ ba tëdd ci suuf toll woon nañ benn instant boo xam ni bu demandé woon mille milliards gars yi jox ko ko. Mhm. mais il ne l'a pas lii leçon la ci bépp jeune boo xam ni cette génération. Mhm. et la génération future ku ci ne yow lii leçon la ci yow na ndekete nit mën na traverser ay obstacle ba yegg fii tey kii leçon la pour ñëpp war a jàng ci moom cas d'école la Ousmane Sonko dañ ko war a bind ci livre yi jàngal ko xale yi école primaire d'abord CM lycée et même les écoles de formation et à l'université hmm. pourquoi pas mais ils ne le feront pas di di Pompidou la ñuy jàngal fii ak ay. di di xaw ma lan ak lan ak lan. Mhm. ba ci importance euh, li mu wax ci assemblée nationale Arona mu ngi mel ni ci ligne bi de wàll. waaw acca waa Touba. Arona Cissé. waaw allo. Euh, xam naa dafa am euh, rek koo xam ne dafa bokk ci pôle communication bu Pastef Touba. waaw. te liggéey bu ama am solo la jot liggéey ci liggéey bi am ay témoignages yu mu bëggoon a def ci sëñ Cheikh comme ni ko suñu grand Ahmed Aïdara waxee. waaw mu tudd am jaxate Saliou moom laa nekkal nii vraiment ci communication.